asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli seen salaam salaam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool loolu jàmm si réew mi ñu ngi nuyu alaaj bu gàtt ko ñaan ñaanal njabootam tey dañu ñëw si wàllu seekeek muy Oreo euh, seekeek nag defe naa ni nekk na tawat boo xam ni si xale yi dañ ko gën a xame mais du ne xale rek lay dal nag danay dal mag bu dee si xale nag souvent c'est bénin amul amul amul danger mais si mom mom benen affaire la mun na jour jafe jafé yu bëree bëree kon lol matna matna xam xalé yim gëna yab nak moy ñi am digënté ñent at bu joomi at ñoñu la ëppul muy lu muy sonal tawat bu gaaw wàlle la nak puisque xam nga ak li ci ñu xamul moy lor yi nga xamni dang koy génn sa gémmañ wala muy génn sa bakkan ndox yooyu bu dalee nit rek mën na ko indil jafe-jafe daanañ tooñ sax naan bu amee ku am seexeeg boo ko reyee daf lay wàll mais ree moom taxul mu mu wàll kenn mais il faut que ndox yi ndox yi laal la ndoxu yi jóge si ay loram laal la loolu moom moo gën a gaaw si indi wàll bi surtout na nga laal ko sa loxo lekk loo xam ne dafay ànd ak lekk dem sa gémmañ seekeeg nag nekk na loo xamante ni maladie virale la doomu jàng bi ñuy wax virus moo koy def ñu tudde ko paramyxovirus donc paramyxovirus boobu mooy indi jafe-jafe bi moom ngas nag ñoo am ñoo yem boo ko xasee am ba ba amatoo ko ba wér dootoo ko amal sa àddina moom benn yoon lay dal donc feebar yi en général yi ànd ak virus que muy seekeeg bi que muy ngas ñu koy wax rougeole que muy hépatite bi soo ko amee ba jeex si yow ba nga am ay virus dootu la dal benn daal lañ xam si jàngoro boo xamante ni moom danay ñëwaat muy grippe grippe nag li ko waral mooy virus bi koy joxe dafay def mutation maanaam day nax yaram day trompé yaram bi bu ñëwee nii ba léegi day ñëwee neneen moo tax neexul wutal préven prévention seekeeg nag euh, dinay dal sax nit du ànd ay ay signes mais màndarga bi ñu ko gën a xamee mooy yii mooy lex yi mooy mooy jug mooy neew yi bu dalee nit ki sax maanaam bopp bi danga koy daal di tëkkaleeg doomu poire noonu lay forme boobu lay xaw a jël forme poire ndax lii day rëy wàcc def nii kon nekk na loo xamante ni day defal déformer sa sa kanam mooy màndarga bi ñu ko njëkk a xamee. nay ànd ak yaram bu tàng nag mooy fièvre léeg mu indi aussi orchite léeg-léeg mu am ànd ak inflammation testicule yi muy donj yi souf awra bi léeg mu lakk. donc moo tax ñu koy gaaw di faj ndax fi ne rayon dañ koy xeeb mais tey boo ko amee fajoo ko normalement mën na ko fa jaar dootoo am doom ndax mën na yàq sa njurukaay donc loolu jar na jar na xam bu baax a baax a baax dinañ aussi jàpp pancréas bi muy gàddam léeg-léeg mu indi eh, inflammation pancréas muy pancréatite loolu dafay am te bu boobaa nañ dem ba nat nit di wàccu kon loolu bokk na mandak yi nga xam dafay ànd ak ànd ak kon nekk na loo xamante ni bu la dalee daal li gën nga gaawut si solution ndax orchid boobu bi daal tescule yi boo ko fajul mën naa ne mooy di la jafe-jafe pour am doom loolu jar na xam dañ leen ne garab yi si xam nag bari na mais nañ si may ñett muy digóor ngi gis ak ngol lañ jaru sax boole yëpp benn si garab yooyu rek mën na ko faj boo si am si ñetti garab tibal bu dee reeni la jëlal juróomi reen rek nga daggate ko moom sew baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo aña boo ñu baamtuwaat ko di moom la wax la nona sénégal 6 ngi gis moom la wax le pilostigma reticulatum ngol lañ mom la wax le ximenia americana ñetti garab boo si am si carton yàlla mënal dimbali ba nga tàggoog loolu di seekee ñu koy orion ñëw si question ni ñoo di tey ku jëkki daal nee na moom dafa euh, euh, dafa gis daal buntu néegam di daanu si gént waaw loolu jàngoro la maanaam tawat bu lay dugg la mel nag day wér si kàttanu yàlla di nga tawat mais day wér question bi si topp bu mujj bi kii daal nee na dafa am hépatite mais daal daf koy def mettitu wetu ndijoor gi kooku reenu saxaw moo si gën a gaaw saxaw wutal juróomi reenu saxaw nga baxal ko si lii su ndox bu baxee fukki minute nga denc ko di ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo añee boo te nag bàyyi li hépatite di bañ soo ko amee soo defee loolu ba pare na ngay bàyyi li muy bañ beurre nen chocolat tiga rek kafe nga wàññi produit laitier yi aussi boo ko defee si kàttan yàlla na lim yoon tàggu fii leen jox rendez-vous suñu gërëm jërëjëf.